suratul baqara ba tey ci fàttali bi ñuy defalante ca mooy tafsir bi bisu samedi tey ñu ngi jël aaya 142 ak aaya 143 ñaari aaya yi nekk sunu kanam sunu boroom subhanahu mu ngi ci xabaar di ñu xamal ci mbir moo xam ne day ñëwi pour jullit ñi préparé ko yuxbiru llahu taala bi amrin yuallimuhu qabla wuquihi yàlla mi ngi jàngal di ñu xamal mbir moo xam ne mu ngi ci sunu kanam di ñëwi xewagul yàlla dañu ko nettali lu tax day dafa bëgg a oyofal bis bu mbir moomu demee ba am ñi nga xam ne ñoo ci nar a jóg di diingat jullit yi ak di leen ci xas ak di leen ci sikk su boobaa yàlla oyofal metit bi jullit ñi du ñu yëg metit xaste bi wala diingat gi moo tax yàlla di leen jox information ne nangam a ngi ñëwi wala nangam a ngi xewi pour bu fekkee loolu am na du nekk mbetteel luñ ci mën a dégg rek ñu xam ne yàlla tabaraka wa waxoon na ci ñaari aaya yi dinañ ci jàng juróomi mbir cent quarante deux ak cent quarante sa yaqulu sufaha bopp hizib dinañ jàng ci ñaari aaya yi juróomi mbir bu njëkk mooy jawaazu an nasx fi lislaam yi fa hada nasxun nee dinañ jàng ci aaya wi nekk sunu kanam ci ñaari aaya yi dañ ci jàng mooy nasaxal dara lenn amoon ci lislaam ñu dem ba ci yàgg dootul amati ñu dindi ko duñu amatu loolu dañ ko jàng ci aaya yi comme ni ñu dindee nar a wane jànge léegi ñu dind julli gi ci baytil maqdis yóbbu ko ilal kaaba fi makkatal mukarrama ñu ne kuy julleeti bul jublu masjidul aqsa waaye léegi jublul kaaba gi ñaareel bi mooy al arjif wal ictifal al azmat wa tahwilat al umur saanul kuffaari izaan lil muslimin tiwaala xayaati nee na buñ jàngee delluwaat ci arsif yi gëstuwaat histoire càmbaraat mbir yi dinañ gis ne yéeféer moom mbiram rek mooy lor jullit du mës am jàmm ci kanamu yéeféer kon nag fa alal muminin an yusabbitu wala yatazazawu hatta yazhara al kon li war jullit yi mooy danañ sax dëgër na keng samp suñuy tànk def ko reen bañ a trembler bañ daw bañ a tiit bañ a yoxi yoxi ci suñu diine ba yàlla leeral dëgg gi bu yàlla leeralee dëgg gi ñu xam ne lii caaxaan la musiba nag ak fitna daal di jeex ci kaw suuf fekk loolu amul rekk yéeféer yi dana ni nokkatu dinañ jàng ci aaya yi ñaar sunu kanam ba tey mooy afdaliyatil umma xeet wi gën gi mu gën yeneen xeet yi xeetu lislaam ku bokk ci lislaam yow war nga sant yàlla tabaraka wa taala képp ku yeew rek nekk ab julit war nga sant yàlla yàlla boole la ci ngën gi xeet defoo benn demande bindoo yàlla lettre ñaanoo ko ndimbal moom dong la neex mu boole la ci ngeen gi xeet kon loolu xéewal la ngëneel gi nga xam ne xeetu islaam ummatal islaam yi nañ ko ala saairil umam li kawniha ummatal wasatiya lan moo tax xeetu lislaam gën yeneen xeeti ndax ñoom dañoo nekk xeetu diggu dóomu lépp ci digg bi lañ nekk lépp wàcc ñu ba ëpp ci ngëm gi demuñu ba ëppal ci digg bi lañ yem fi leen yàlla yem loo fi leen yonent bi yemloo lañ yem xeet boo xam ne dañoo nekk ci digg bi loo ci dégg mooy lan mooy nekk ci digg mooy lu nekk doo ci dem ba jeex doo ci bañ a dugg tamit gis nga ci ci ngëm ci lu mu mën a doon ci digg bi ngay nekk dem équilibre loolu mooy xeetu lislaam moo tax ñu nekk ngën gi xeet mu ne wal wasatiya shiaaruha nekk ci digg bi mooy sunu xàmmekaay loolu la ñu ñëpp mooy sunu shiaar mooy sunu sunu mayo buñ ñu mën a xàmmee mooy nekk ci digg bi ñeenteel mooy jawaazu al imtihaani al mu'min wa jizyaani alayhi jullit léeg-léeg mën nañ ko teste xool ndax li muy woote dëgg la wala du dëgg dinañ jàng ci aaya yàlla jékki-jékki test jullit yi te aaya bi moo wax ne xabaar bii xew xew xew bi man yàlla test laa ko def kon léeg-léeg teste ay jullit day dagan pour xam ñi nekk ci dëgg ak ñi bokk ci mbooloo mi rek te bokkuñ ci juróomeel mooy sixatu salaati man salla ila gayri alqibla waaye wa huwa laa yaalamu dalik wa lahu ajruha wa laysa alayhi i'aadatuha walaw salla shuhuran ila gayri lqibla ma dama qad ijtahada fi maarifati alqibla summa salla ila haysu addaahu ijtihaaduhu dinañ jàng ci texte yi nekk sunu kanam dina dagan nit julli fekk bu muy julli xamul penk bi mu ñëw rek laaj ca ba sonn waa yéen seen xibla dëkk bi fan la gaay na ah xamuñu ko julli jot bu dajeeg ay nit yu mu yaakaar nañu ay jullit lañ muy leen yéen su ngeen di julli bi bu ngeen xamuñu kooku ah daan ne man sa dëkk sàngam ba ma fa nekkee te dëkk boobu bii moo dend ñooñu nii lañ doon jublu daan ne allahu akbar julli weeru yàlla ñu ne ko yow du noonu ndeke nii la kooku li mu fii yëpp dagan na du ko fay du ko baam dara nekk ci parce que lu tax def na effort avant muy julli effort bi lan la ah laajte na mais bu ne woon cëpp ci dëkk rek julli jot mu lal si jaari allahu akbar kër laajte wut mu pare ñu ne ko yow li nga julli yëpp fii du nii fii la da koy fay parce que moo ko tey laajtewul yàlla mu ne kenn amul droit def leen te laajoo lax hmm? Laxdari daf ñuy wax ne jullit wala yaxillu lahu an yafala filan ta yaalamu hukma llahi fii yàlla ne fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun da ngay laaj boo xamul da ngay laaj nee maa daama waa ji na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 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم يقول جل وعلا بور سبحانه وتعالى mu ne سيقول moom ngeen naan sayaqulu moom ngeen di wax yéen tukulóor yi ina wiyo ya maa wiyo yi dina waxi sa yaqulu dina waxi ñan assufaha way dese yi am na ci biir màkka ay nit ñoo xam ne dañoo dese matuñu ñooñu danañ waxi ji ñooñu ci fal lañ lañ ci lan lañ mu ne minan naasi ci nit ñi am na ci nit ñi ñoo xam ne dañoo manki as-safi wa man man bihi daafun lii ku dese saa yu ko déggee mooy koo xam ne xel mi moo wayul da ngay dégg ñu diw xel mi dafa wayeeti ku xelam wayeeti nag matul su waxee nga dëkk nga dégg ko ci wax ci bu solo nga gis ko ci col gi su lekkee nga gis ko ci lekk bi su liggéeyee nga gis ko ci liggéey bi amoon nañ benn waay boo xamante ne peinture kat la benn maire dem jënd siwo silatex ne ko peintural ma peintural ma mu daal jàpp néeg bi peinture ardoise ba mu weex tal ñu ne gars yi ne mu peinture miir ba mu weex tal ñu ne allahu akbar mu peinture dër bi alors loolu lañuy ñuy wax chef mooy koo xam ne xam nga li mën na waaye xel mi mooy des chaque jour du def loo xamante ne loolu la naan chef yàlla nag tabaraka wa nee na yonent bi lii ma la nar a def loo soo ko defee borom xel yu dese yi danañ wax ak yow ñoom munoo leen wax yàllaa ma ko sant bu yàlla yàlla maa ko sant xam ne xelam neexu xelam matu moom su yàlla santaanee dara nga nekk ci lii tey suba mu nga nekk ci le moom day ñëw ne la yow da nga yabaate bis bu nekk rek nga bëgg ñëw yóbbu ci lu xamul di la indil jafe-jafe loolu moo tax yàlla di jox yonent bi information bi moo tax mu ne ko sayaquulu dana waxi ñëwagul mais bàyyil xel ñan asufaha way dese yi mu ne la way dese mooy kan mooy koo xam ne dafa am problème mu xel li koy waral nag yenn saa yi encore li ta lii di yenn saa yi koo xam ne sax xel mi day mat mais toppandoo bu muy toppandoo ay nit day dem bay def yëfu dof xool mooy tey suñu dëkk bi du ngeen ma ne ñii sol yére yu baaxul yëpp am ay dof lañ te xam ngeen ne sol yére ba pare sa awray nekk na lu dul dung ci biti jullit ko am xel du ko def mais lan moo tax ñii di ko def kan la ñuy toppandoo ay nit yenn saa yi ñàkk xel ñàkk xel ñàkk mat ñàkk xel dina ko mat waaye toppandoo dina ko ware te saa yoo toppandoo nag su boobaa lan la lay jural mooy alkande am na beneen ñetteel boo xam ne day tax nit di def yëfu dof mooy dumuyu dëgg dëgg ngi nii sama yoon loo def bu ko nit ñi contrôler fekk ci dof moo tax mbokk yi lislaam di ñu jàjj bu baax parce que diine bi du mbirum xel nekkul da ñëw rek lu sa xel rafetlu nga ni baax na lu sa xel ñaaw na nga ni déedéet lii moom wax dëgg yàlla loolu mënul nekk yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min annaas am na nit ñoo xam ne dinañ la wax yi ma yéeféeri waa màkk dinañu wax ñii ma wallahum an qiblatihim kaanu alayha lan moo leen wëlbati ci seen qibla bi nga xam ne moom lañ doon jublu ñoom dañ doon jublu masjidul aqsa mooy Jérusalem Palestine jàkk jooju Suleymaan tabaxoon yonent yàlla Muhammad foofu la doon jublu sahaaba yi di fa jublu di fa julli léegi nag ndigal a nii di ñëw yàlla di ko jox yonent bi foofu yonent bi doon julli di fa jublu yàlla ne ko bu bu mu amati su boobaa nag ñii dañuy ne maa wa wallahum lan moo leen wëlbati maa sarrafahum an istiqbaali bayt al maqdis ila istiqbaali al bi mag lan moo leen wëlbati soppi leen ba ñu bàyyi fañ doon jublu muy mag kaaba gi kii eh, masjidul aqsa léegi ñu daal dem jublu ji kaaba gi lu ko waral lii lu ko waral xanaa seen bànneexi bakkan la ñuy toog soo demee loolu jàkka jooju mi ngi ci màkk ñaari xibla la am comme nii ñaari mihrab benn nii benn nii moom lañ naan masjidu xibla tey nii yonent bi sallallahu alayhi wa ci boroom xam-xam yi werante gu ñu werante ban julli la ñenn ñi ëpp ñu ne tisbaar la def na ñaari ràkka jóg di préparer troisième ràkk bi wala ci ruko yàlla daan nekkoon ko na yonent bi daal di tourné saxaaba yëpp daal di tourné bi mu paree ñu ne mu ne leen waaw lu tax ngeen tourné gars ne ko yaa tourné ñu tourné kon ñooñu duñu ay ay sufaha ñi nga xam ne yant bi tourné na rek ñu tourné waaye bu fekkee ne ay dofan fa yoonu amuloon xel am nañ naa mu waaw am continuer seen julli par après lii mooy la lii ban façon julli la lii encore lu bees la walla waaye saxaaba yi dañoo gëm ne yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam du defantu du waxantu defantu xam ngeen defantu walla ngay waxantu moom maa yantiqu in huwa illa wahyun kon ci biir julli ni mu màggee mu def lii amrun azim mbir mu rëy la moo tax ñu mu wëlbateeku gaa yi wëlbateeku fekk avant neexu ko woon koy jublu waaye day dégg ay baat moom naan sunu diine ji baaxul ba pare di jublu ci sunu xibla loolu nu mu mën a nekkee bañ ay nit ba pare di baaxal lañu ñu nekk di ko ah? fa ñuy jublu nga fay jublu wala la ñuy wax nga koy wax lu koy dégg moo tax yàlla tabaraka wa taala ñëw daal di tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay barab yu baree bari mu ne ko bul nuróog yéeféer bii ci la bokk da doon jublu ci seen xibla yonent bi yàlla wëlbatiku mu wëlbatiku noonu la ko yonent bi toppee rek lépp lu yéeféer def mu def leneen lépp lu ñu def mu def leneen lépp lu def mu def leneen ba ñu mujj gi ñoom ñu ne yée ñu ndewaaru kii de moom dara indiwu ba ci kaw su dul def mu def leneen ba ci jigéen bu gis mbaax gaa yi dañ daan isolé wu jigéen ñi bu jigéen gisee baax kenn du lekk lekkandoog moom kenn du toogandoog moom kenn du waxandoog moom mu ne yéen jullit ñi isna'u kulli sayin illa al jimaa def leen lépp ba mu des sëy foofu nag la gars yi simee seen sàppe nag ne kii contre ñoo tax mu jóg borom bi ne bàyyil xel ñooñu danañ waxi lan moo tax yéen ngeen soppeeku jóge ci xibla gi ngeen doon jublu dem jublu feneen su boobaa maa ngi lay yëgal ne tontu bi mi ngi nii yow Muhammad li nga leen di tontu mooy qul na leen wax lillahi yàlla moo moom al mashriqu penk wal maghrib moo moom sow fu ma neex ma jublu seen yoon yéen penk bi du pour yéen sow bi du pour yéen julli bi du pour yéen pour yàlla la comme yàlla moo ko moom nag subhanahu wa taala moom yàlla moomu tabaraka wa taala moom laay jaamu jaamu ma leen seen yo walillahi almashriq walmaghrib moom yàlla yahdi mooy jubal man yashaau ko ko neex ila siratin ci yoon mustaqimin wu ne caw jub xoj muy yoonu lislaam అల్లాహు సుబానహు వటాల మోమోం పెంగ్ అల్ మష్రిక్ wal maghrib moom moom soow yàlla moom lépp koo fi dégg muy woote ci kaw suuf ne maam na lu ma moom may koy at may koy at rek may koy at boo ko may ay at après léegi nga gis loolu mu ne woon moo ko moom keneen moom moom muy dund wala mu dee xatta jabaram sax xatta jabar ji kii sama jabar la guddal fan rek léegi nga gis keneen ànd ak si wala léegi nga gis mu dee keneen ñëw takk waxuma la kër gi waxuma la ak bagage yi waxuma la yi doomu aadama amoo fi dara li tax amoo fi dara xam ngeen tax ñun amuñu fi dara xam ngeen ko ah xam ngeen ko mooy bi ñëw bi dañ fay indaale woon dara ku fi ñëw indaale mbax ne mbax ne montre bi nga ñëw indaale woon moo tax booy dem doo jaay lañ naan tegal suñu yëf yëpp tegal tegal waaye fay indaale woon tus gaanaay waay tegal te gaa yëpp la ñuy nangu fekk ci morgue bi nga tëdd ñu tekki affaire yi léeg-léeg sax ndeysaan bu néew bëgg ñu ne eh fàtte ngeen dindi bu ñu or bi yow nga dëgg ñaanal ko rocc comme rek doomu aadama de amuñu ko lëre de duñ la utal sax mbasin duñ la utal ganilaa bu weex wala zaka wala lan dañuy dem yére olal yu ñu nekk ni kenn solu yére boobu kenn bëgg ko muy perkaal mètre ñaata la mètre perkaal ñaata la 300 400 cent 300 400 kenn bu ko sol loolu la ñuy dem jëli jëndi ko te waa ji milliardaire la woon dañu dem indi loolu laxas la ci ak witeen maanaam milliardaire bu dee li ñu koy préparé du mat 5000 francs ci xaalisam ci milliards yi dencoon du mat 5000 ci liñ koy sàng jëndal ko ci parfum jëndal ko ci witeen def ko yóbbu ko. du mat 5000 paquet coton ñaata lay jar 300 butel kiki 44 téeméer mètre per kaay li ñëw kenn du koy bu ci téyeer bi ñëw ko de paa ñoo koy boros yi ñuy borosé saaku ceeb tax doomu aadama a jaamu yàlla jaamu yàlla rek moo yàlla moom moom lépp moo tax mu ne naa leen tont li yàlla moom al mashriqu mooy penku mooy fi bi di fenkee loolu mooy mashriq wal mooy fi bi sowee yàlla moom moom lépp fu ma neex ma jublu moom yàlla yahdi mooy jubal man yasha ko neex léeg fii taayi mel mi benn waaye bu nekk caaxaan di mooy yàlla soo ko nee yow yàlla mooy jubal koo neex moo ci laxdeer da ngay dégg mu ne nit du toog di wax ne xatta yahdiyan allah fa innahu min alaamati shiqa bal xislaan wa tamsil basir tax julliwoo ah, neexul yàlla waaye tax koor gi wooroo neexul yàlla te bu ñuy añ ñu ne ndax añ ma doone neexu yàlla moom parce que ko dégg sénégalais yi bu jaamu yàlla jotee dañuy bañ a def effort pour jaamu yàlla liggéey liggéey xoolal nit ñi ni ñuy sonne pour am kan moo toog incha allah bu neexee yàlla incha allah man léegi ma nekk milliardaire toog tëdd nelaw yow jógal jàngi non dina ne bu neexee yàlla dina am xam-xam yow jógal uti liggéey nga ni bu neex yàlla dinaa nekk milliardaire jógal takk jabar nga ne bu neex yàlla dinaa may doom mun naa toog fii doom yi di taw da ngeen mos a dégg ma wax yow yàlla bu ñëwee nga gis ñuy tappale non gis nga bu neexoon gisee ma mel ni yàlla ñu ne yàllaa ko yàlla ci lii la ko <laughs> yàlla de xiir yàlla kay xiir ko ci bu xiir boppam may baat yu mel noonu la nit ñi war a moytandiku yàlla wax na ci quran wallazina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana ñu góor góor lu ci ñu góor góor wallazina jahadu fiina maa dañu jóg jihaad xeex ak seen bakkan ngir bëgg a dem ci yàlla la nahdiyannahum dama leen di jubal dañuy jóg xeex ak seen bakkan bëgg egg ci yàlla yaa mu ne dañuy dem parce que daf nañ jihaad def nañ dara def nañ effort mais ki xam deful dara doo xam dara qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba xam nga yàlla kañ la pare bi la bindee dafal la xel Hmm? wala ñaari ñoom wa hadaynaahu najdayni ñaari yoon a ngi nii mu may la xel mu ne la jaaral boobu boobu boobu boobu dafa sori dugg ci kër gaz baa ngi nii fauteuil baa ngi nii nga ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam toogal fooy toog lu tax ngay toog ci fauteuil ku la wax toogal ci fauteuil leen toogal kese toogal rek lañ la wax toogal fooy toog mu ne ci fauteuil bi lu tax ku la na toogal ci fauteuil bi kenn wala la toogal mais sa xel moo la ne nga xam nga ne fii toogee dooy de fii mooy fi la ñuy ah. loolu mooy yoonu mbaax ak yoonu bon ku nekk xam na yoon bu baax fi mu ne nii boo demoon fee ci stade bi nga ni maa ngi ñaan yéen ñi nekk stade bi yàlla na ngeen fi dee dañuy xeex ak yow parce que bëgg ñu fa dem yoone yéen ñëpp ngeen génnee ba dem na ngeen sangu ngeen di liggéey ngeen dem jàkk rek dee fa doomu aadama xam na bu baax a baax a baax li baax ak li bon waaye nag bal yuridul insaan li yufjira amaama doomu aadama dafa bëgg a dafa bëgg a fo moo tax yenn saa muy pose ay yenn question yu mel noonu ak di waraak ak di daw di làqatu fekk xam na ne amul rëccukaay borom bi subhanahu wa taala ne ku góorgóorlu rek jëm ci yoon bu baax man yàlla maa lay jubal ila siratim mustaqim ci yoon bu jub bi mooy lislaam benn yoon boobu moom amul leneen jàngeen ci alquran wa anna hada sirati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu subula fa tafarraqa bikum an sabili zalika zalikum wasaakum bihi laallakum fattaqun yàlla mu ne benn yoon laa leen bind benn yoon laa am ni siraatu mustaqim mu daf ko wax sax wa anna hada siraati ne mooy sama yoon siraati amul keneen damir bi ci moom la jëm mustaqiman nu mu ngi jub xoj mu ne topp leen ko fattabi'uuhu topp leen ko bu yemoon foofu doy na mu indiwaat beneen ndigal mu ne wala tattabi'u subula bu leen topp yeneen ñal yeneen yoon yoon lu dul alquran ak sunna rek yoon la ku nekkul ci alquran ak sunna rek yaa ngi ci yoon yooyu te gis ngeen yoon yooyu tey ni mu tàqalee jullit yi gis ngeen yoon yooyu tey ni mu wuutalee jullit yi te yonent bi waxoon na ko sallallahu alayhi wa moo tax nañu leen mooy tundiku ku bëgg a nekk ci dëgg daal jàppal ci li yàlla wax ak yonent bi nga rëcc waaye ñoom sàmbaak ñoom dembaak ñoom moodoog ñoom yero yàlla yónniwu leen kenn daal la yàlla yónni mooy Muhammad benn yaan la yonent la yàlla am mooy siraatal mustaqim te nee na mi ngi nii da ngeen ci topp wa anna haada siraati mustaqiman yoon woowu yàlla bi mu ñu ko indilee sant ñu ñu topp ko xolal daf ñuy indil sax ñaan ñuy ñaan pour mu jubal ñu ci yoon woowu ihdina xam ngeen loolu yoon la ko jullit di wax par jour ihdina siraatal mustaqim calculer leen waxuma naafile yi farata yi rek suba ñaata ñaar tisbaar ñeent muy 5 muy 6 takkusaan ñëw muy timis ñëw gée ñëw 17 fois nga taxaw naan yàlla ay yàlla dinaa yàlla nag ñu jubal yàlla nag ñu wommat yàlla nag ñu teg siraatal mustaqim ci yoon bu jubbi ban yoon mu ne siraat alladina anamta alayhim min annabiyina wa siddiqina wa sohda wa salihin mooy yoon bu baax yàlla yàlla ma teg ci yoon boobu ban yoon mu ne yoon bi nga tegoon yonent yoon bi ñu mooy yoon bu baax est-ce gis ngeen ci kaw suuf ku jaar yoon bu gën a baax yoonu yonent am mooy yoonu siddiq ñu dëgguwoon ñoom abu aboubacarin saddiq suhada ñoom hamza ñu rey ci yoonu yàlla yoon yooyu ñu jaaroon ah ba aboubacar takk ci garaatu siddiq hamza jële ci garaatu shahid am na ko mën a jaar beneen yoon bu gën a baax yoon boobu moo dañ nax suñu bopp da ngay gis yoon yi ñu indil fii yëpp dañ ñu ne yoon yooyu day gaaw a dugal nit aljanna moo tax nit ñi bàyyi yoonu Muhammad ni am na keneen ku indi yoon bu gën a gaaw loolu réer amul benn yoon bu gën gaaw yoon yéen jàll hmm? dégg yéen yéen tuwa ngeen yebere wootere tan subhanallah anaati aljanna yebere wootere anaati aljanna nga ne loolu hmm? ñii moom nga ne du ñu julli du ñu woor bu ñu deewee du ko àjjana ah, na de ne àjjana la jëm léegi loolu moo gën a baax yoonu yeneen bi bu fekkoon ne bañ a julli ndeysaan bañ a julli nit ko defee dina dugg àjjana sahaaba bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yonent bi ne waxal loo bëgg ma ñaanal la waxal rek yow ni ma la gisee ni nga ma bëggee nii waxal loo ma ñaanal mu ne ko asaluka murafaqatuka fil janna maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma yàlla ni ma ànd ak yow àdduna yàlla dugale ma noonu aljanna ma ànd ak yow yonent bi ne ko mënuma loolu waxal leneen mënuma ko de mais yonent bi man nag bëgguma leneen lu dul loolu mu ne tek ba ci yàgg yonent bi siggi xool ko ne ko kon ainni ala nafsika bi kasrati sujud da nga dugg àjjana mu ne ma mu ne bëril loo julli ni nga bëril julli de ni nga bëril julli bu nit ñi nelaw gudde yow jullil ainni dimbali ma ci sa bopp ainni ala nafsika lu bari waaye fii waa ji bëgg dugg àjjana yéen ko julli fii nga bëgg dugg àjjana ñu ne la bu julli loolu contradiction de ah quelle contradiction laa ilaha illallah dañ leen seetaat suñu bopp dañ leen xoolaat suñu bopp mbokk yi dañ leen xoolaat suñu bopp borom bi subhanahu wa taala mu ne wa kazalika naka nii jaalnaakum laa leen defee yéen xeetu lislaam jaalnaakum laa leen dafa yéen jullit ñi ummatan ngeen nekk xeer wasatan wu diggu doomu wasat kulli shay xiyaaruhu yonent bi saa sallam lépp lu ko yàlla tànn loo woon lu ci gën a yomb la nu indil yonent bi yonent bi bi ko yàlla tànnuloo li ko yàlla tànnuloo lépp lu yombul la moo tax lislaam dafa yomb yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul xola boo wooree nga feebar wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar est loolu ci julli kesal déedéet ci lépp munoo taxaw jullil taxaw mënoo taxaw ñu ne la taxaw lu wéeru mënoo ñu ne la toogal ñu ne la tëddal ni nga mënee almuhimu jullil mënoo aji amoo loo aji am nga ñu ne demal lan moo gën a yomb li parce que da ngaa gaañu am blessure wala da ngaa ragal feebar wala ndox ñu ne tiimal bi kenn fa yomb bay bëgg de naa leen fii ba ba tàyyi ne lislaam li tere mooy li ñu njëriñ la ñu tere te lislaam lim ñu sant soo ko defee léegi bu doon ab yahud daan def yóbbu soo ko defee léegi léegi ñaari at àdduna bi yëpp wëlbati lépp lu mu sant nit ñi day defar àdduna lépp lu mu tere day yàq àdduna lépp lu mu tere nit soo ko jàngee te àdduna lépp lu mu sant nit na mel nii loolu day defar ak wala jikko te nit bul lekk lu bon lii rek kay ah xoolal sàcc mu ne ku sàcc nañ dagg loxo fekk nit defar yëfam doom i am yaakaar nga ñëw ne ko di xool loolu tas yaakaar boobu yàlla mu ne kii nañ ko nañ jëflante ak moom xoola fenn wala njaaloo lislaam lépp lu mu tere dara baaxu ci lépp lu mu santaane ski ce ngay wax est yàlla nee na maa leen def ngeen nekk xeet wu diggu doomu wal muraadu minhu anna ummatu muhammad xayrul umam wa adalaha nee na lim ci mooy xeet yonent yàlla muhammad ñoo gën ci xeet wi ñoo ci gën a lu ci gën kuntum xayra umma daan ngeen ko yàlla moo ko wax uxrijat linnaas dañ leen a segg tame leen génne leen indi leen lu ko waral mooy da ngeen di digle lu baax di tere lu bon te da a gëm yàlla mu ne naka noonu li takunu pour ngeen seede pour ngeen nekk sohada ay seede ala naas ci nit ñi ëllëgu ndema yowmal qiyaama xeet jullit yi ñoom ñooy seede yeneen xeet yi loolu nu muy nekkee bu yàlla woowee yeneen mbooloo yi nation yi ne leen ñëw leen ñu àtte sama kanam yeneen ñëwee dañuy taxaw ak seen yonent taxaw yàlla moo gën a xam ñëpp mais day yoonal mbir yi rek day koy yoonal waaye bu ko neexoon loolu du ko ci fekk yonent bi mu yónni woon nii xam nañu gëmoon yonantu boobu xam nañu ko weddi woon day jël yonantu boobu ñu ko gëmoon ne dugg da koy yoonal parce que la du man sama bopp man yàlla ngelaw li sax bu ci tegoo mu mu mu jël ngelaw li yooyu ngeen naan ñu naan zarra nga xam ne bët du ko gis bu ci tegee mu jël poids subhanahu suñu laajee yeneen bi ne ko yow la yàlla yoon ñëwanti ñu mun a waaw jottali woon nga wala jottali yow mun a jottali woon naa ñu ne yéen nit ñi ñu ne ñu ne ñun kii xamuñu ko de dañ laa xam ñu mus la gis tey nga doomu aadama xam ngeen moom moo ëpp fitti doomu aadama eh. malaaka yi dong laa bu leen yàlla bàyyi noonu doomu aadama doomu aadama jaaxal ndax doomu aadama yi ni mu bëree pexe ak nit ñu mënee laqarte dugg génn si doomu aadama moo tax yàlla ne ah yéen ngeen di xam ngeen kii ñu ne waaw nga ko taxaw leen ana ummatu muhammad ñu ne ñëw leen ñu ne taxaw leen nii ne kii mooy gan ñu ne kii mooy yonent sàngam ñu ne xeet wi ñu ne waaw ñii ñooy ay nitam ah kii nee na jottali woon na ñii nee nañ xamuñu kii xeetu muhammad ne ah ñun de jàngoon nañ ci sunu téere yonent bi jottali woon na moo tax ñun foofu la ñuy soxlaa seede ñun ñooy seede yeneen xeet yi c'est parce que ñun dañoo jàng ci alxuraan histoire yonent yëpp yàlla yónni woon jox leen ay téere ak seen histoire fan ngeen jàng histoire Moussa ak Haarun parce que ëllëg Firawna taxawee ne man xamoon ku tudd Moussa taxaw ko complètement ah doomu aadama waxuma la mu weddi yonent bi yàlla yónni woon ci moom mu doomu aadama ci boppam taxaw ci kanam yàlla yàlla mu ne ko xoolal sa bàkkaar ne defu ko dama koo def defuma ko laa wax yàlla may nga ni leen mu defuma ko yàlla mu ne ñu indi seede mu ne nañu kay ba pare mu ne nañ indi seede ba pare kenn du ma seede kurul sama bopp la yàlla ne al yawma naxtimu ala afwaahihim nag gis nga fekk boobu xamul woon xamuñu woon luy xew ah ah d'accord naam xool nga baa moo ne kenn du ma seede kurul sama bopp moo indi kay seede bi sax yàlla ne ko d'accord naam waaye nag damay tëj gémmiñ gi loxo ne ana lil xaraami lamast tànk di seede loxo di wax tànk naan dëgg la de ku say loxo di wax sa tànk di wax dëgg la foo jëm mbokk yi ñun ñii tey su suñu loxo yi waxee suñu tànk yi seede est-ce que est danañ waxuma la danañ seen aljanna danañ ko seen ak bët allah alyawma naxtimu ala afwahi wa tukallimuna wa tashhadu waaw dama lépp li ngeen doon def tey tànk yi dinañ ko seede loxo yi dinañ ko wax te gémmiñ gi dama koy tëj waaw wax leen yeneen xeer yi nag ñooy ñëw seede ne dëgg la yow yàlla yónni woon nga yonent bi te leeraloon na wax na ba sonn waaw yàlla nag acca kon yéen dem leen bu ñu demee nag ñun nag ñu commencé noddante ku defaree ci yàlla yàlla mu ne kaay leen yéen yéen Muhammad alati seede ñëw leen takunu suhada ala nnas wa yakunu rasul shahidan alayhi di ngeen xam fii lan moo tax yàlla subhanahu wa taala wëlbati yonent yàlla Muhammad ci jël Jérusalem masjidul aqsa yóbbu ko masjidul haram borom bi tabaraka wa taala mu ne li takunu pour ngeen nekk suhada seede ala naasi ci nit ñi ngeen seede leen waaye bu ngeen seede nit ñi ba pare wa yakunu mu nekk ar rasulu yonent bi aleykum ci yéen shahidan moom tamit mu seede leen ah yow Muhammad ah moom moom mu ñëw ñëw moom moom amul beneen xeet buy ñëw di ñu seede ñun nii yow yàlla yaa ma yónni woon ci ñii te jottali woon naa alquran bi waxoon naa hal ballaxtu ñu ne waaw ma ne allahuma fashhad ñu ngi nii waxoon naa leen bàyyi fa ñaar taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadillu baadi kitaab allah wa sunnati rasul ba ma ñu dem changé mbir waaw moo tax yeneen ba mu gise ay waay waaxu bëgg dugg àjjana dama leen dee leen gaay de téye leen ñi ne ñi sa xeet la mu ne ñii yokk nañ wala wàññi nañ dama indi woon yokku nañ moo tax yonent bi li mu indi bul yokk bul lim lay indil dong benn borom day wax ne sunna si yonent bi mu indi buñ ko doon dund ba mu jeex duñ def lépp waajoo bi dégg ci àddina bi mu ne ñu ne day dugg sunna cent pour cent amul dañ naan ah am na lu may jéem a def léegi ci waa ji day dund sunna cent pour cent amul fenn sunna cent pour cent kenn ko mun dund lekk njéeréer sunna la est-ce que yéen sénégalais lekk ngeen njéeréer te bàyyi ngeen sunna ah yéen tamit nee dagan na saaf leen ko reere ko tey li mu ne nii ku la invité woon nga dem si defem imam dëmm la ay jéeréer laa ko fekk muy lekk borom bi subhanahu wa taala mu ne wa yakunu rasulu aleykum shahida yonent bi seede leen gis nga moo tax ñu war a góorgóorlu fu yonent bi taxaw di ñu seede bi taxaw di ñu fu ñu te yonent bi génnul àdduna lu dul taxaw na naan yaa rabbi inna qawmi ittaxasu haza alquran mahjura yàlla man de alquran nga fi bàyyi woon nit ñi bàyyi nañ ko de kenn toppatu te te sànkute tey nit ñi lan moo ko waral mooy bàyyi alquran rek lan moo tax nit ñi di bokkaale bàyyi alquran lu tax nit ñi gëm ne Sénégal yonent bu ñuul mu fi bàyyi alquran lu tax sénégalais gëm ne moom du julli du woor day dem àjjana lu ko waral bàyyi Qur'an maanaam bu ngeen jàngee li tax sénégalais yi réer lépp lépp lépp li ko waral mooy bàyyi alquran ndax yii ma wax yëpp ay alquran da cee wax yëpp alquran da cee wax kon naka la alquran wax ñëwee yonent bi ñëw ak li mu daj ci ay coono ci jàngale ak leeral ba jóge fi bàyyi fi saxaaba yi ñu ñu ñëw alko kon nu mu nekkee li lu gën a doy waar mooy léeg ngay wax ni ba ci mu ne la ah waaw mag ñi nag ma mag ñi li ñu nekkoon mel ne waa ji wax mel ne waa ji wax moom dafa ne mag ñi nekkuñu woon ay jullit beneen bi mooy mag ñooñu est amuñu ku leen mag Mouhamed magu leen ah beneen bi mooy mag yooyu fan la yàlla wax nañ ko danañ leen topp ci Qur'an par contraire sax alxuraan dafa dafa jàpp ñi doon topp ay mag dugal leen safara ndax jàng leen ci Qur'an yàlla mu ne inna ataana saadatana lu tegu ci aaya bi fa adalluna sabil ñu ne dañoo toppoon sunuy sang ak sunuy mag kubara una sunuy mag ñooñu lañ toppoon bàyyi yonent bi fa dallu na sabil ñooñu ñooñu sànq kuy mujj yàlla mu dem leen safara kon yàlla waxul lañ topp benn mag waxul lañ topp benn pap waxul lañ topp benn kilif benn kenn dong la yàlla ne topp leen ko mooy yonent yàlla muhammad te dinañ xam léegi aaya yaa ngi ñëw muqaddima laa leen di defar rek yàlla mu ne wama jaal naa defuñu alqiblata jubluwaay qibla soo ko déggee mooy fi ngay julli di ko jublu boobu mooy qibla yeesaa nga def ne kuy julli day jublu penku déet waxuñu jublu penku de attention de waxuñu fenn jublu leen penku jàkka ji jubluwul penku waxuñu penku fan lañ wax qibla lañ wax ci ñun ñuy jaawale penku ak xibla xibla mooy fi ñu sant suñuy jublu suñu kanam ne fa dara mooy xibla da yàlla mu ne subhanahu wa wa ma jaalna defuma de al qiblata qibla bi allati bi nga xam ne kunta alayha ci nga nekkoon qibla bi nga xam ne fa nga nekkoon di fa jublu wëlbatiwuma la ci lenn lu dul illaa lu dul li naalama man yattabiu rasul wala ba timu lu dul ma xam pour rek pour ma xam ñi neen ñoo la nangoo topp gis ngeen topp yonent bi dëkk yàlla sax testé na ay nit seen ngëm dëggu na wala dëgguwul ndax ñi topp nañ yonent bi wala toppuñu moo tax yàlla wëlbati yonent bi ndax xool ñen ñu dëggu ci liñ ne topp nañ yonent yàlla Muhammad léegi nag imagine leen bi yàlla ne yonent bi tourné yonent bi tourné am ñu tourné am ñoo xam ne ñoom lañuy ñun tourné wuñ ñun fu nekkoon dafa bëggee ñun fi la nekk lii lañ xam ñun duñ du ñuy tourné léegi dafa pare ngeen tourné moom pare ngeen nekk moo tax ku bañ a topp yonent bi képp ku fekk yonent bi def dara nga lànk bañ koo def ci kuréel bii nga bokk déggu leen aaya bi de lii daal leen delluwaat leen ci yàlla mu ne wa maa jaal naa defuma alqiblata jubluwaay allati bi nga xam ne kunta alayha yaa ngi ci nekkoon di ci jublu tourné wu ma la fa illa lu dul lu mu ci rek na naalama pour ñu xam pour ñu xam lan man yattabiu kan moo topp ar rasula yonent bi kan moo yonent bi kan la ndaw li ma yónni moo tax ma tourné leen yen ñëpp ma xool ñan ci mbooloo mi wër yonent bi ana ñan ñoo ko ci nangoo topp ana ñan ñoo lànk yàlla xam ko kon ca jamono jooju bi yàlla wàccee ndigalul ci kaw yonent bi yonent bi nangu ko moom ci boppam tourné sahaaba yi topp ko tourné ba bi mu leen laajee lu tax ngeen tourné ñu ne ko yaa tourné ñu tourné xaaruñu tooguñu di xaal dalil limaza bon yow yonen ñu jaaxle na déedéet tourné ñu tourné léegi nag ñun fii li ñu yàlla sant ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata ci ñun fii ñoo ko dul def ñaata loolu ñu ne ah ne ñun lii lañ fekk suñu papa def inna wajarna aba ana ala umma ñun fekk nañ suñu papa lii la suñu yaay lii la bon vraiment leneen li ñun vraiment fu ñu ko des parce que xam nga bon rek ngay dégg Sénégal ñu ne la ah yàlla waxul loolu yooyu nga ne waaw d'accord xam nga yàlla bu ko waxatit xam nga déy bi ay laay bu yàlla waxul ko bàyyi inna lillahi wa inna naa bu jigéen boo xam ne ba ñëw ne ma moo man sama que pourquoi mu ne parce que ñun ay tijaan la que pourquoi parce que tijaan Sénégal du muuru est loolu musir est loolu dëgg la fa la yàlla waxe loolu maanaam moom moo gisee noonu rek ci alquran ci sunna yenent yàlla tuddul benn tur bu dul baatu muslim benn mooy ngeen nekk jullit wala tamuutunna illa wa antum baat boobu la yàlla wane mu ne huwa sammaakum muslimuna min xam jeex benn baat muslim amul beneen tur sàmba ñoom diw diwu diw diw kullu hizbin bi ma ladayhim te yàlla wax na Muhammad inna allazina farraqu diinahum wa kaanu shiyan lasta minhum fi shay innama amruhum ila allah summa yunabbi'uhum bima kaanu yaf'aluun loolu moo tax ñu war a def attention ci di wuuteeg yonent bi ñu ne la yonent bi nee na nga naa ah, lii lan moo tax yàlla wëlbati ñi mu ne illa li naalama man yattabiu rasul illa li naalama man yattabi ar rasula moo tax mu wëlbati leen ndeke xatta gëm yàlla gi foog nga topp yonent bi ku topp yonent bi gëmoo yàlla qul in kuntum tuhibbuuna allah fattabiuni yuhbibkum allah su fekkee li ngeen di wax dëgg la bëgg ngeen yàlla man yoon ni ngeen topp su ngeen ma toppee yàlla bëgg leen wa man yuti ir rasul faqad ata allah képp ku topp yonent topp nga yàlla loolu yàlla wax ne wa man yuti ir rasul faqad ata allah mais ndaw lu ñu yónni lan mooy wane ne yow déggal nga ki ko yónni mooy ndaw li ñëw wax la nga ni dëgg la buy bu ñu yónni woon kenn tey ñii mu ñëw waaw la ñu ne ko ah, ñun ne li nga wax su yónnee sama fu gëmuñu ko est-ce que kon rek rek nañ ki ko yónni yonent bi nag la yàlla yónni ci ñun yàlla yónniwul keneen képp ku ñu bàyyiloo dara ku ñu bàyyiloo julli bàyyiloo ñu woor bàyyiloo ñu lii gëmloo ñu leneen ne lii ak lii ak lii daf ñuy nax rek ak ku mun doon nag waaye kooku kooku ngay xalaat sa xel moom la waa kooku fi may wax ak yéen nii kooku seen xel yi dem kooku laay wax kooku kooku waaw waaw waaw kooku kooku la kooku seen xel yi dem yi rek kooku la lépp lu la bàyyiloo surtout mu nekk alxuraan ak sunna am nga problème waaye rek am nga musiba mooy te nit borom bi subhanahu wa taala mu ne kooku bàyyi yonent bi lan moo tax mu bàyyi mu ne min man yanqalibu ala aqibay waa ji dafa delluwaat ca kufr nekk kéeféer dellu ca ceddo ga dégg bañ na topp yonent bi sallallahu alayhi wa lu tax ndax dellu ci kaaf kufri bi mu nekkoon yarjiu ilal kufri baadal iman mu dem delluwaat ci kéeféer ga bàyyi ngëm yàlla kooku yàqule na voilà parce que yàlla yónniwul keneen yàlla yónent bi la yónni soo topp yonent rek dellu nga ci ceddo loolu moo tax ñun ñoom ñu nekkaat ay ceddo fi mu nekk ni dañuy nekk Sénégal maam ay ceddo lañ naka ngay waxee lu nekk jullit naan ñun ay ceddo lañ nga fekk jullit muy ngénte di jëxëri jëri nga ne lee ñu ne mu ne lee di bayuñu de waaye jàddo lañ dag muy dimbali ba pare timis jot mu bëgg a ñëw bokk ak yow sàppe bi ma shakiran ma kafuran da ngay gëm baa nga weddi yàlla munoo nekk jullit nekk yéeféer munu nekk yàlla wax na ci alquran ya ayyuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafa dugg ba ci biir amul dugg udd bu yemoon ci baat boobu rek doy na mais mu ne kaafa taw ki leen lépp ba mu jeex bu kenn yéen ñi dugg sax mu ne bu kenn ngumba mu nekk ci ginnaaw di di di génn na lépp dugg soo duggee bi ci biir nag foofu lañ liñ jàng aaya bi ñu jàngoon keroog sibghat allahi wa man ahsanu min allahi sibgha léegi nag yow yaa ngi biir bokk nga waaye sa benn tànk dugg comme gars yi ni ñuy nekkee ci tata bi xar seen yaram nii lii dugg di ne li génne bii di ne fii ah loolu duggoo yow kay duggoo ci biir oto bi ci biir nga nekkoon ci biir ngay dugg uddu xulu istil mi kàpp foog ñu delluwaat ci kufru borom bi subhanahu wa taala mu ne santaane bii ma santaane na gaa yi bàyyi masjidul aqsa jublu kaaba baytullahi alharam wa in kaanat la kabira illa ala alladina hada allah topp yonent bi day diis chaque jour lu dul ci ñi yàlla jubal illa ala alladina hada allah doomu aadama yi topp seen i bànneex moo leen di gënal chaque jour ak topp seen i mag topp seen i pap topp seen i maam topp seen i sëriñ moo leen di gënal ñu topp yàlla topp yonent bi moo tax mu ne loolu dellu ci kufru googu képp ku toppul yonent bi dangaa dellu ci kufri gi ci kufri ga nga dellu mu tax mu ne loolu dana nekk la kabira lu diis saqiil jékki-jékki rek ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee rek nga daan ne ah comme yonent bi loolu man de wax dëgg yàlla yonent bi loolu laa def loolu ñëpp mënuñu ko day gis benn waay fukki at juróom fukki at ngay jullee nii nga ne ko ah yow tey eh, eh, ngaa góorgóorlu ci julli ji mën a mënaguma ko parce que mënaguma ko xam nga rek xam nga rek ñaanal ma rek ñaanal ma ñaanal ma ba kay loxoom ñaan du ko indi ak a bëri fii ci biir dëkk bi yenn saa yi nga gis jigéen joo xam ne day def lépp mais man muuraay rek ka ma dese def leen ndànk rek ñaanal leen ma rek dafa diis ah. ci ñan la yomb allazina hadahumullah ñu yàlla jubal rek la affaire bi yomb ñooñu boo ne qaala allah qaala rasul ñu ne samina wa ataana yomb ci que ñooñu yàlla kese moo nekk ci xol yi mais ñi nga xam ne yàlla sàmba demba ak bi mu ne illaa ludul ala lazina ci ñi nga xam ne yàlla jubal leen yàlla ci yàlla boole leen di wa ma kaana allahu li yudia imaanakum maa ngi ndiigal ne wa ma kaana allahu yàlla du mos a nekk li yudia muy sànq imaanakum seen ngëm gëm gi ni gëm na yëg ne yàlla du ko sànq mukk mukk mukk mukk mukk seen julli salaatakum julli ngeen doon julli jublu masjidul aqsa bu njëkk jëf yu baax yooyu ngeen doon def di ngeen yëg ne yàlla du ko sànq maadaama yow jóg nga ci yéene def lu baax bon ndogal fekk la ci ñu tourné la wala xamoo woon lu baax loolu yàlla tabaraka wa taala daf la koy fay innama al wa innama li kulli mriin maa nawa yàlla subhanahu wa taala du seen julli yooyu ñu doon julli démb wa ma kaana allahu yàlla nekkul li yu diyaa muy sànq imaanakum ay salawaatukum seen julli yooyu nga xam ne yéen ko doon julli di jublu masjidil aqsa inna allah la raufun rahim binnas inna allaha binnaas la raufu rahim yàlla subhanahu wa taala dafa lewet dafa ñeewent doomu aadama yi yàlla buggu lakk ni gëm ngeen loolu yeneen bi sallallahu dafa gis benn waay benn jigéen bu yor doomam di ko nàmpal mu ne sahaaba yi kii suñ ko ne woon jëlal xale bi dugal ci safara si ndax dina ko dugal kay du ko dugal mu ne yàlla moo ko gën a bëgg doom ji yàlla moo ko bind bind doom bi yàlla moo gën a lewet moo gën a yërëm doomu aadama waaye doomu aadama moo bëggul yërmande bi borom bi wax na ci quran sama yërmande moo jiitu sama mer te yërmande moom yàlla tabaraka wa taala wasiat kulli shay'in dafa matale lépp moo tax ba sahaaba bi ne allahumma arhamni warham muhammada wala tarham maana ahad mu ne ko dayyaqtal waasiata waaw yërmande yàlla rahmatullah waasi yërmande yàlla dafa yaatu bul ko xatal bul la raufun rahim loolu moo tax mu yónnee yonent wàcce yonent yi yónni leen ay téere ah di tiitaalaate di xuppe def leen lii misaal aljanna nu neexee misaal safara nu ragalloo pour doomu aadama yi am yërmandeem boobu mu leen bëggal mais nit ñi dañoo wowle li yàlla di bëri yërmande yëpp di ñeewanti ñëpp am na ñu ko bëggul du ñu jege boor boobu sax billahi lazi la ilaha soo demoon léegi stade nga ni leen jàkka jee ñu ngi fay sédd ñu ngi fay séddale yërmande yàlla dañ naan la gannaaw puusal yaa ngi ñu teree gis yaa ngi ñu teree gis ah <laughs> ah qultu law xarajna wa daxalna fi lmala wa qulna lahum eh, ilmu eh, rahmatullah yuwasa fi lmasjid taalaw xuzu nasibakum yaquluna qum amamana نعم اخرج نحن يهمنا هذا هذا ما يقول nag kon il faut ñu bàyyi xel suñu borom subhanahu wa taala xéewal yi ak yërmande yi nga xam ne moom la ñu baaxee yàlla subhanahu wa taala ay yu mel nii def ñuy jàppale ñu xam ne moom subhanahu wa taala binduñu binduñu ci kaw suuf pour alak moom yàlla wàcce ñu kaw suuf pour sonoon ndax yàlla moo ñu defaral suuf si nooyalul ñu ko defal ñu ci bépp yërmande waaye boole ñoo yonent yërmande boole ñu ci xeetum yërmande pour bëgg ñoo yërëm ëllëg loolu kesal ñun nag ñu war a jóg uta yërmande bi subhanahu wa taala yadfau dar ankum xoolal moo ñuy jañal lor wa yufiidu l ihsaanu aleykum bépp xéewal bi sotteeku ci yéen yàlla subhaanahu wa taala moo koy sotti waaw wala ngelaw li ñuy nooyi lan lañ fay suñu bët yi day xool ban facture lañ fay suñu gémmiñ ñuy wax ban facture lañ fay nopp yi dégg ban facture nga fay tànk yi dox ban facture nga fay eh. yëpp yàlla dafa la ko xéewal ngay lekk di naan di kërti kërti fu nekk nga dugg kon yàlla bu la nee dama laa yërëm te ku la ñeewant la yow war ngaa gëm loolu nga jóg ci loolu incha allah mbokk yi moo doon dars tey ngi jéggalu njuumte yi ci nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa